yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi waaw kay jërëjëf jërë ngeen jëf euh, niñ ko àndewoon ak yéen rek tey ji docteuru Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba yi ñoom lañ feggoo ci euh, ndogul tey ji ginnaaw bi nga xam ne déglu nañu waxtaan waa am solo ñu fekke ko am occasion mën cee jëriñu bu baax baax donte ñu ngi ko doon topp feneen waaye tey dañ ko dañ koo fekkal seen bopp euh, ñëw fegoo ci ak Moukhaddamatoul Khidma euh, muy kuréel bi nga xam moo lëkkale euh, docteur yi nga xam ne mooy privé yi ki nga xam mooy Abdoulaye Faye jiite leen mu am délégation bu takk bu am solo boo xamante ni mel na ni lii bu takkee dara mooy cofuñu li nga xam ne invitation te ñor na leen te yitteel leen te xam nañ fi ñu jëm bu baax a baax ñu am kaddu yu ñu bëgg a joyal bi nga am nañ relation bu am solo boo xam ñu ngi ciy jàpp ci infirmière bi am solo boo xamante ni dañ ko def te yàlla rek tax ak Serigne Touba mi nga xam mooy borom barab bi loolu nag bi ñu ñëwee am na kaddu yu ñu bëgg a joyal Serigne Ablaat ñu ngi lay nuyu bu baax a baax yaa ngi tax délégation ci turu daayira Muxaddamatul Xidma yëpp di leen dalal bu baax a baax di am mbégte kontaan baax di leen wax jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne moo fi teg toog jataayu Cheikhul Khadim mu sëñ Mountakha Bachir ko ñaan suñu borom yokk ko wér ba lii mu naalal Serigne Touba mu am ci ndam yu kawe di ñaanal laale tamit rakkam yi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo leen dugg nga ci liggéey yooyu ba mën a àgg fi mu àgg di beral ab nuyoo nag waa daayira bi man kenn ci daayira bi la ndax eh, eh, ab ànd bu bëggee yàgg. te su ma wàññee daa yàq naa ne intervention bi ma fi njëkk a def ci biir jumaa ji maa ngi ko defoon 2004 2000 euh, safra 2014 waaw moom laa njëkk a ñëw fii nga xam ne nii booba sax lu xat la woon ndax dama ne woon am naa yéen liggéey sëñ Touba rek waaye nañ tàmbalee ci 28 yi nga xam ne nii ñooy jàng kaamil sëñ Touba bi ci lu mel noonu lu mel ni tàmbali woon at mu jot ñu koy def muy gën di yokku ñoom sëñ Abdou Lahat euh, di ñu ci gën a soññ ba tey ji ñuy dem ba am barab boo xam ne nii lañu daan def di ko jëlee fii nit ñi fële dañu yóbbu ci clinique ba léegi defatuñ ko léegi nit ñi bët bu set ma leen leen faj dañ bi nga xam ne moo ne ci biir jumaa ji loolu day wane liggéey Sëñ Tuubaa noonu la euh, taalibe bi yéene rek lay am waaye la koy àggale ak la koy taxaw moom yoonam du ci ne moom ne yéene te taxaw rek Sëñ Tuubaa mooy àggale mbir yi boppam donc loolu moom seede suñu bëggoon a def la di wane ne kenn ci yéen lañ ñii ma ko nekk sa xam-xam bi nga am da nga da nga ko àndi wàllu wàllu wàllu spécialité yu wute lañ ku ci nekk da nga ñëw dimbali ñu suñ kam kàttan ndax ku ne daa am loo xam ne xam ci santé mais mënoo boole loo xamandoo lépp euh, lii tamit euh, bisu mbégte la ndax fekke daa doon loo xam ne ni ku ko suñu boroom defal war nga koo sant ba ñëpp dégg sa baat ndax euh, man tal fekke loolu ci loxob suñu borom lañ la nekk kon ñu ngi koy sant suñu borom bu baax a baax a baax ci man gi ñu man loo ba daaw ñu fekke woon ko ren jii ñu fekk ñu fekkewaat ko ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala at yu bari ñu fekke ko Euh, bu loolu xasee weesu ñu ngi sant bu baax euh, sëñ Abdou Lahad Bousso ak ñi mu àndal euh, infirmerie bi nga xam ne ni moo nekk ci biir jumaa ji ndax tey ji taxawaay bi nga xam ne am na ko ci taxawu mbokki taalibe yi nga xam ne dañ fiy ñëw ci bisi àjjuma yi ak ci bis yi nga xam ne ni tamit ay ay màggal yooyu day am kenn tey ji nattab leen tut njëriñ li mu fi am intervention yi mu fi jot dégg déggu yëpp mu tàmbalee ci docteur Souran docteur Mor Diagne ku ci nekk dem nañ ba xam ne lii du lu mën a ñàkk ci dëkk bi la man ba ma demee tamit euh, euh, Màkka gis naa ko fa te euh, suñu borom daa dimbale Serigne Touba loo gis Màkka rek. day yàgg waaye di ko gis di ko gis Touba ndax taalibe bu ñu fa demee bu ñu ko gisee dañu xam lii bëgg-bëggub sëriñ bi la bon des na ko ci fexe fàggoo bon ñu ngi leen di féliciter bu baax ndax foofa euh, euh, taxawaay bu mat lañ ko muy Médine muy Màkka foo ci dem da ngay fekk ñu teg tax hôpital boo xam ne hôpital mobile lay teg mën na dem ba infirmerie bi romb foofu ñoo xam ne nii dañuy am hôpital mobile boo xam ne nii ci yoonu murit lay nekk ñu ndax màggal day xaw a xat donc lépp loo xam ne mën na xaar mën nañ ko pousse mais li mën na xaar dañoo war a maanaam mën intervenir ko war a xamee donc am na jumtuwaay yoo xam ne nii murit mën nañ seen bopp xëy na nag organiser ko ba mu mën a yomb noonu moom moo ci des rek te Abdoulaye Bousso mi yaakaar naa ne fii mu teg tàngam bu ko bàyyiwul dinañ dem ba nga xam ne nañu fexe yóbbu ko foofu dimbalee leen ko waaye dootu doon loo xam dañ ko soxla woo suñu Abdoulaye ñu ngi leen di sant bu baax ci taxawaay bi di ñaan yàlla yàgg ko ànd ak yéen ba dem ba suñu doom ak suñu sët di ko taxawee voilà bu ko defee lii moom liggéeyal yàlla bu ko gën a mag ñun xamuñu ko ndax ñun sëriñ bi dañu daan faral di ñu soññ sëñ Saliou euh, buñ damaa jóge waan xel comme sonn ñëw yooyu matt ñu waa ngi saw ñu ñu xaw a xaw a lompañ daan noonu xamal ne lii ngeen di def muy faj dongob tarbiya li wax liggéey suñ Touba dara féete ko ci kaw ñi fi jógee ñëpp koo fi gis rek ci doo nga tarbiya nga ko mën a jàmm ndax am fa mu bàyyi ñëw am na lu mu yaakaar Sëñ Tuubaa ba tax mu bàyyi ab dëkkam donc kooku liggéey ci nit ñooñu ñooy liggéey Sëñ Tuubaa bon loolu nañ gën jàppaat gën dimbali lépp loo xam ne gis nañ ko feneen te mën koo roy dañ ko fexe andi ci biir dëkk bi ndax Sëñ Tuubaa yaayoon lu ko am te kenn du ko fi def nag buñ ko deful ñun nit ñi jinne yi ñoo koy def te bu ko jinne